jërë ngeen jëf mbokk internet li si réew mi TV ñi nga amaan mbégte ak contentement bu baax foo amal ne si àddina di ñu bàyyi xel ñu ngi lay nuyu di la ziar di ñaanal jàmm te di ko sàkku si yéen comme ni leen ko diggee rek macha allah chaque jour ñu leen di toppal sëñ àlla borom bàmba yi bàyyi bébé faa chéri soxna ami ah, di nit ku yàlla baaxal nit ku yàlla may baatin wala njaay nee na baatin ak batum leen bokkul sëriñ ak këriñ ak fëriñ bokkul ñetti mool yi nga xamante ni ñoo ko turu waaye bokkuñu sant macha allah mu nekk nit ki nga xamante ni saa yu waxee nga daj li mu wax daal di si teg sa bët ngir xam-xam bi waaye bu gëstu jotee dafa dem gëstu ji jàngi ba yàlla may ko tey lu mu ko may moom sëñ Alla Ba mbokk yi du ñu guddal réew mi yëngu na réew mi dans na Balla Gaye 2 sorteem mu ngi tukkal làmb ji ñeneen ñi ñu ngi naan li ñu bëggoon gis si Balla Gaye gis nañ ko ñeneen ñi ñu ngi naan Balla Gaye 2 état de forme bi des na ku nekk nag xam ne ni man naar ndaane yeegi nii borom bambay bàyyi Bébé Fall sëñ Alla Ba maa ngi am mbégte bu baax ak contentement jàkkaarloog yow tey nag yaakaar naa ñoo ngi quelque part fu ñu nekk nag ñun mënu ko xam waaye nekk ñu nekkuñu nekk ñu ngi quelque part daal nuyu naa la waaye maa baax sëriñ di di la wax bàyyi nga am jàmm di nuyu mbokk internet yëpp di leen wax ne namoon naa leen loolu mhm. su ngeen ma gëj a gis rek jàpp leen damaa nekk si liggéey bi parce que nekkul ne chaque jour laa am jot mhm. nekk si réseaux sociaux yi parce que yaakaar naa euh, man man gi daal moom dafa bari. bari na de nuyu mbokk internet yëpp di nuyu mbokk sénégalais yëpp bu baax a baax a baax a baax. Mm-hmm. ba nga laaj ma leneen. aja sëñ Alla jamono ji jamono yi si ginnaaw génnoon nga si si réew mi ay ñaan amoon ay jàppale waaye amoon ay tegtal yi nga xamante ni doon nga baaxee askan bi ñu bëri nag yaakaar naa jot nañ la woo par rapport ak jigéen bi nga xamante ni. dafa toll woon si am ndaw jékki-jékki perte li nga xamante ni mooy ndawam nga waroon si joxe ay saafara yàlla suñu borom may la nga dem jàngi loolu ba daal di ko xam doon nga waxtaan aussi tamit si affaire de ngóor a góor yu tële yi parce que jamono ji xorom bi ak kii bi moom poobar bi moom moo tax góor yu bëri tële ji mhm. suñu àlla loolu est mën nga si revenir à tuuti un peu parce que ñu bëri dañ ni woon da nga doon totane li ngay wax gëmmoo ko yaakaar lu ne fàng signaler la borom bambay mhm. dama leen doon wax sama débutant ma ne leen man lu ma mënul mindeef mën tax ba ma faj ko mhm. mais lu ma jàngi dem ñëw mhm. damay ñëw taxaw ne bu ma neexee taxaw ne Sénégal ñu ma ko fi dàq boo dee wàññi juróom juróomi da ma si boole parce que man a man gi dafa bari maaraay dañoo doon ñu nga xam ne loo wax man nga ko ñu naan waaw ginnaaw yàlla ak yonante beeg sama ñaari waajur sëñ Saliou rek laa gëm ndeysaan di koy ñaan yàlla barki Serigne Saliou Mbacke nan déggante hmm? yaa wuli al baab waaw alxuraan wax boroom xam-xam yi laay waxal te dégloo ma xel ma hmm. kenn dégloo xol hmm. te da nga gis góor gu nga xam ne day nekk si jigéen ñaari minute du ko si am wala bu jigéen bu amee benn rek daal di doyal sëkk ak a ak a si léegi la yaakaar naa ne am na ñu si jot a man bagage bi ma defee émission bi bagage yi ma jotoon a defar rek amul sax semaine mu jeex jeex na takk tàkk kon loolu dama koy dellu di koy sant yàlla mm-hmm. te ñooñu ñu ngi may waat di may commandaat mm-hmm. te affaire dafay jeex mais instant bi maa ngi ci nekk di koy defar mm-hmm. kon loolu dama ci yàlla li nga xam ne wàllum néew kattan la dama koo jànge ba man ko isin ko si ay nit mhm. sa man bala may jox nit dara dama nit ñu nga xam ne damay ko jox na leen isin ma lii isin leen ma lii mhm. ngeen doxal ma xool ñu gis résultat moo tax ma commencé ko jaay doomu aadama yi mhm. parce que léegi ñu nekk si internet bi jaay loolu dafa bari di wax nga xam ne baaxul mënuñu dara bu dee sungu la sax baaxul ndax sungu fi mën naa yàq sa rein yi sa rein yi wax nga dëgg baaxul mooy dëgg la sungu nag yeneen maaraay bu weesoo loolu bu bu ñu déggantee man ak moom téléphone tamit ci mm. kàttanu yàllaa ko mbaaxam mm-hmm. wallaahi lazim bu ñu jëflantee loolu noonu mën nañ see faj aajo ba nga xam ne ndaw mën naa formé waat loolu daloo si ginnaaw dama koo jàngi te nee naa la bi ma defee émission bi waxoon mm-hmm. am naa si plus de quatre a hmm. ku xamul sëñ Alla nag dégg nga ko nee leen ku xamul sëñ Alla tamit fu koy fekk adresse am Taax la Bambay Taax foo wàcc station sel bi soo ma woowee téléphone ma tegtal la kër gi cey bay bébé Ndakaaru wala ñu dem geneen kër dëkk ba ñu dëkk luyee fa dafay mën nga ko di sama kër laay liggéey fa nga naan teg sa tànk jël la yóbbu ba fa may liggéey mhm. señal nëbbutuwoo nëbbatuwuma te loolu noonu loolu noonu preuve la voilà mhm. kii làqatu du mhm. nekk këram di liggéey déedéet ki mënul du nekk di liggéey dëgg la ndax ku sa am fulla ne booy dox si caaxaan danaa la sama kër fi defee caaxaan te ku ñëw sama kër des bala nga ñëw dama lay nuyoolee samay kilifa macha allah yi na rek parfum yi jox ma yi incha li ma faraloon di wax rek mhm. nee naa leen parfum yi dama koy commandé bu ma neexul mën naa commandé yi nekk fi mais yi nekk fi odeur bi neexul dëgg la yi gaay yi jaay fi Sénégal gisuma si yu ma neex yi neex dëgg dafa cher mhm. moo tax ma dem ba Mali Bamako mhm. jënd fa ay parfum yi nga xam ne nouveauté la bu ñëwee ñu tijjiwaat ko defar ay saafara xool nun def ba euh, pikir wut benn pikir bi gars yi jaag benn machine bu nga xam ne moom ngay xëccee saafara bi mhm. def ko si biir parfum bi mooy doon wàllum ubbeeku mhm. parce que bi léegi dafa avancé nit da nga évolué liggéey mhm. sa nga teg ko si yoon man nag li may liggéey dama ko teg si yoon caaxaanu ma foowu ma fafalu ma copié de te ñi nekk bitim réew xam nañ parfum bi bu baax a baax waaw lu leen tëwoon parfum bi du question ubbeeku kese da lay mayaale wàllum bayre tubaab bi la ak nit ku ñuul man daal si li may faj daal laay wax. macha allah te temps yi nag yor naa bu doy waar tamit leget gi. lan la. leget gi may taxawal gars yi. legetu lan. leget samp. leget gi may taxawal gars yi mbër yi sax bu leen neexee man naa leen see taxawal defaral leen si ay càngat yu nga xam ne doy na waar. leget bi noonu legetu lan la. te du toj. suñu alal leget lan la suñu alal. leget gi moom pour ma taxawal si nit. waaw barke borom Touba xaalis mooy tax. bu weex tàll. bu weex tàll. waaw taxawal la si. raxasal la sa yaram ba mu set mhm. jox la li ma koy boole na la demal nga sangoo sa ginnaaw boo ko sangoo mhm. demal nga toog weer ba xam doo gis a résultats si yow laay léeg la bamba ñu dañoo jàngoo ne naa ne bi gars yi toogee Dakar di luye appartement mhm. ñu dañoo dugg si àll bi dem jàngi di nuyu waa waa Guinée saawoo bu baax ak waa Bafata ak waa Salikaña di julku Casamance tamit waa Malfara bi ñu no waalo tamit jaaroon naa fa sa dëkk ba sama dëkk waalo jamono mhm. waaw nga xam-xam de na barki yeneen te bi acca macha allah ñu bëri dañ ni seet bëri na ñu koy def mais ku nekk ak bi nga koy seetee rawatina am na ñi nga xamante dañ lay seetal laaj la ay dix mille francs ñenn ñi di la seetal laaj la ay vingt mille francs mais dañ gis ni sëñ àlla moom seetam seerul cinq mille francs lay seete mu mel sëñ àlla daal jàppale nit ñi moo ko a jóg wàllum seet nee la suñu borom dafa ma see may guddi ji laa koy man a def li saxaar bi mais bu fekkee seet bi dama leen koy waxaat am na ñu xam biteel bu gàtt bi bu sob bi bu sob bi doy waar waaw nee naa la boo ñëwee toog si samay tànk benn xale laay wuti fa la ñëw teg ko jël biteel bi teg ko muur xale bi biteel bi benn morceau bu weex mhm. loo bëgg xam si àdduna mhm. laaj ko biteel bi biteel bi di xale bi xale bi ko jottali loolu su ma bàyyi moo ma ko jox maa ngi koy delluwaat di ko ñaanal suñu borom ko fi bas kanam biteel bi moom doy waar wàllum seet moom lépp la lay wax li mu gis yëpp mais cinq mille francs ngay seetee waaw cinq mille francs laay seetee képp ku nga xam ne mas naa laa seetal te gisuma la boo seetaan la vidéo bu la neexee nga commentaire ne gisoo ku fen nag sa biir bàmmeel fen ya lay fekk te mhm. boobaa malaaka mi ne la duma duma yu metti mhm. tamit sorketu biir ak sorketu picc yi sorket mooy lan waaw ba ndaw ba waaw sorket mhm. am jigéen ñu koy am si biir seen kanam waaw am góor ak jigéen tamit da koy mu doon ay picc si yaram ak yooyu yooyu si weer wala fukki fan ak juróom laa koy faj incha allahu rabbi 15 jours waaw 15 jours. macha allah si kàttanu ba nga laaj ma leneen. ok allah yaakaar naa fa la ñuy duggee rek parce que la ñuy des ci temps bëritul coow am na sëñ àlla mhm. doomu dubal les bi. Mhm. triple les bi. loolu ñoo de géejewaay. Balla Gaye 2 mu demoon France préparé ji foofu si INSEPS war a jàkkaarloog Tapha Tine bisu le 21 juillet incha allahu rabbi Tapha ginnaaw ginnaaw bu mu génnee def sort ñu gis forme bi état de physique bi. bawal mhm. bawal yëpp kontaan ñenn si waa géejewaay xaw dut si biir waaye di ñu gis Balla Gaye deux jours avant mu génn sëñ àlla def sorti nan nga gisee sorti Balla Gaye 2 bi waaw macha allah man jàpp naa ne Balla Gaye boo xoolee misil sax damaa jàpp ne vidéo bi ma seen nii mhm. bi muy soog a dem la hmm? waaw yaakaar naa vidéo bi doonu vidéo bu nga xamante du bu si semaine bii la ko def du vidéo bu bees làmb affaire yi naxante la rek waaw ndax Balla Gaye xam na ne moom bu demoon fële lu mu yàgg-yàgg vidéo dina ko yónnee gars yi gars yi dugal ko mhm. moo tax gars yi des fois dañuy dugal yi nga xam ne boo gisee naan naan yéen commentaire gars yi naan kii yaram wi baaxul mais Balla Gaye bu leen wonoon tey actuellement tey def tey vidéo mhm. tey jii yónnee leen ko ak vidéo bi ngeen xam ne du doon benn won ñu won ñu Balla Gaye normal bi waaw won ñu Balla Gaye normal làmb dafa doy waar mhm. te champion la ndaanaan la mhm. ku mënta daan ci àdduna amul ah des fois nag jafe-jafe mënta ñàkk am na combat de suñu àll waaw buuse bi lay dawal lay dajeel les gens di bawal ah Moustapha Tine Moustapha bawal bawal yëpp tamit nekkaat si ginnaaw waaw moom tamit gis nañ ko moom nga doon plus de neuf pono. xaw ma nu ko gars yi ah. pono yi. tey am nañu Moustapha. ah façon entraînement yooyu gisuma ko fenn. làmb ji dina neex de. mais si mën nañu si xaar bagaar. waaw làmb ji dina neex trop. bala Gaye ñi ko doon wax ñëpp naan ñoo daa bala Balla Balla Gaye du mën a leen. Mhm. yaxey joobi kii ni Balla Gaye Yékini dóorul bëriwul hmm. Gris Bordeaux gis na ko tamit moom Balla Gaye combat bu njëkk ba hmm. Balla Gaye capacité bu njëkk ba hmm. loolu moom yàlla da dafa mën a dóor a xeex boo tasee Balla Gaye sab xeex da lay réer loolu ko day téye gars yi si gàllaaj xaw ma mu demee noonu ah si gàllaaj boobu la ñuy wax parce que si ngay yëngu est-ce que ji gis nga si mystique waaw jamono jii nag may wax ak yow nii waa kër am na Moustapha Tine luñ gën a mën a jug wutaat taxawaay nan ko lan waaw suñu àll li nga wax garaaw na de ñii may waxe ak nii waaw Balla Gaye taxawaayam nii may waxee ni moo gën a baax taxawaayu Tafatine ci côté ñaar jël sëñ àll Tafatine nag lu gën a mën a wutaat jug ak ay mbokam ay mbokam gën a jugaat si àll bi mm. gën a ñaanluwaat nañ ko def bu baax a baax mais làmb nee naa leen mën nañ koo régler si semaine mën nañ koo régler si ñetti fan si bi si géew bi mën nañu koy régler waaw exemple rek laa la jox kon actuellement ni Balla Gaye jékku mystiquement ni Balla Gaye taxawaayam moo gën a baax a gis a parce am na lu nga xam ne bu ko defee si làmbam day ñàkk combat bi muy lan mu wax si internet ah junjul ah may may ñu junj ñu rek ñu xam dama ne la yàlla nag mooy borom faxaalu maa waaw yàlla noppi na ba mu noppee moom du tey mhm. mais barki alxuraan Balla na lu nga xam ne kenn bu ko defee si combat mook tafaatin mhm. ñàkk combat bi mais du lu mu wax si internet te ku ma jigéen ah. dinaa ne ko lii moo tax bu ko Balla Gaye defee ñàkk combat woo leen suñu àll ba mu wax leen lan la yéen waa Balla Gaye dee kon mais Tafatine moom combat bi des na moom yaakaar na entre na a Tafatine jugaat hmm. na moom tamit am na fu ma koy dégg hmm? doy waar mais du ma ko wax moom tamit mais xam naa mën naa wax côté yooyu côté yi daal côté yi njaareem la man xam nga man sa Jurbel waaw côté Jurbel man sa ñaala borom Bambey fu ne laay dugg si àdduna hmm. kilifa gu xam naa la kilifa gu ne laa tarbiyu mais côté yi Jurbel la waaw kon waaw waaw foofu rek laa yem macha allah aca santa canta ndërëm na la nan ngay tàgg waaw sant ñëpp rek fii ngeen ma fekk tey ji nag mu doon bërëb bu nga xamante ni ah, nit a ma eh, jël ah andi ma fi ma liggéeyal ko fi ba pare mm-hmm. par yàlla suñu borom def nag bi may ñëw ma ànd ak samay xarit mm-hmm. yéen tamit wax dëgg yàlla ngeen doon nit ñu baax fekk ma ba fii mm-hmm. bërëb bi xam nga ne ku ko gis xam ne bërëb bu doy waar la bërëb bu nga xam ne bërëb bu jaxasoo la quelque part la daal waaw quelque part bërëb bi yàqoon nañ ko képp ku yàqoon sa place wala sa place bërëbu liggéeykaay nga bañ mu ay tàkk ak yooyu di la sol parce que mm. jamono ji mm. place yi war a tàkk si réew mi musiba dem leen aari yi pour mu pour tàkk safara siy taal musiba safaraay saytaane la mooy taal ren si 2024 bii ay musiba naaru laay nga aar sa place damal nga aar ko pour safara si signal doo joxe numéro téléphone bi si li nga wax nee naa leen 77 la 402 la mën jot whatsapp la ak appel normal bu weesoo loolu hmm. bëgg a xam résultat yi sëñ àlla borom borom bambay def waaw si tiktok nga tàppe sëñ àlla borom bambay di nga gis résultat yi fa def bala ngay dugg si moom wala bala nga ko jox sa xaalis wasalaamaaleykum wala sek nee na ñaani egsi na moom waaw waali sek nee na ñaani egsi na kooku sëñ àlla nee na tamit sëñ àlla borom jinne yi waaw wax na ko de nga xam ne mënu ma ko leeral ndax kilifa la loo jëflante kilifa waroo di ko leeral dëgg la yàlla ko yàlla defal jàmm defal ko tawfeex ak tay siir macha allah jërë nga